asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nag tey ñu ñëwaat ak yéen ci seen lu guddi naafile gi tey nag naafile gi ñenti ràkka la bu ci ne mu jàng ci faatixa benn yoon ak alam nasrax ak qul huwa ahad bu ci ne mu jàng ci ñetti yoon ñu baam waatal leen ko ñeenti rakka faatixa benn yoon alam nasrah ak qul huwallahu ahad lu ci ne mu jàng ko ñetti yoon kon mbokk yi ñu jox leen dégg ak daje